mbokk yi seetaan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu demee fële nga xamante ne moom mooy Maya waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy maamu Adji Sarr yar ko ñu ngi fii ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy Djirnda Djirnda nag fii mu nekk dëkk boo xamante ni dëkk la ci bu dëkk yi cosaanu aji saar yi xam naa ne dinañ ci gën a xuus ci kanam incha allah ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen li ñu fi indi mooy fexe ñu xam dëgg-dëgg kan mooy aji saar ñan ñooy mbokkam lu ñuy wax ci moom ndaxte ni ñu ko waxee coow li bari na lool ku ci nekk ni mbokkam la ku nekk di wax lu la neex tey nag ñu bëgg génne li nga xamante ni moom mooy dëgg-dëgg cosaanu aji saar ak ni mu yaroo fi ñu ko yaree ak ñi ko yar liñ xam ci moom incha allah rabbi ñu ngi toog ak chef de village bi diw yoo ci turu Kader Sarr ginnaaw bu ñu ko nuyoo suñu question bu njëkk buñ koy laaj ginnaaw bi mu nuyoo téléspectateurs yi mooy mu wax ñu aji Sarr mooy kan ñan ñooy ay mbokkam fii ci dëkk bi ak moom lu mu bokk ak Adji Sarr. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp nuyu kilifa yi nuyu waa Jirnda. nuyu leeral TV kontaan nañ trop ci bés bi ndax Adji Sarr suñ doom la Adji saar pàppam suma rakk la Maya foofu lañ ko yar mu indi njàngam jeexale ko suñ loxo fii suma rakk bale toog moo ko yoroon fii kon aji waa Jirnda la waa arrondissement Niodior la waa département Foundiougne la waa région Fatick la sénégalais la comme tout le kon aji fu mu benn diina rek moo fi nekk muy islaam fi mu juddoo aussi chômage sax amu fi ndax ñëppay liggéey kon fi mu juddoo màggee fi caaxaan amu fi kon aji ñu ngi ko yar fi ñu ko war yare yaree comme fi ñu yare ñun ñëpp foofu lañ yare aji bi mu ju suñ loxo dem Dakar yar boobu la am jullit la taalube la daf doon nuyoo su la nuyoo sax dafay sukk nitu jàmm la ndax ñun xamuñ ko ci histoire mais na xale la comme xale yëpp yàlla jox na ko nag mbindam jox na ko succès ndax aji su fi jaaree rek dangay gis moroomam ñëpp na ñuy def kon mun nañ wax ne nit ku baax la nit ku yaatu la te fi may waxee nii dafay génn si bitis waa Jirnda yëpp gis ko te man may seen chef de village te wax dëgg yàlla war mu ma toog ci tele waa jimba ak confiance bi ñu am ba def ma chef de village ma wax loo xam ne xaw ma ko mbala may wax loo xam ne waxu soxla mbala suñ ko déggee dañ lee kat suñ kilifaay li mu wax du noonu loolu moo tax ñu ñeme taxaw si tele bi su nekkoon si beneen façon nañ am beneen façon buñ ko bàyyi ndax soo amee sa doom képp ku doon ñu koy toroxal di nga bañ loolu loolu moo tax lépp lu si ner nit pare pour def ko aji nu pare nañ la tontu pare nañ la aussi defanteew ak ak ñoom. dëgg la euh, aji fii la nekkoon euh, fuy euh, fële la la la yaroo ci maamam mën nañu xam ni yan circonstance la ko maamam yaree ba mu màgg. xam nga famille boobu gis nga gis nga seen kër naka lañ mel. famille boobu famille bu yaatu la ñoo xam ne si liggéey rek lañ leen xam kon du ne aji donga nekkoon lu mot fanweeri xare mu ngi fa ak seen baay ak seen famille kon famille bu mag la nga xam ne si liggéey lañ leen xam ak yar ak teggin ndax ku xam coocoon mbin masa lañ koy wax ñooñu duñu ay caaxaankat ay jàngkat lañ ay mbaalkat lañ comme ñun ñëpp ñoo bokk benn métier bi ñuy def ci dëkk bi ñoom soo gisee fekk lañ foofu ñu nga ji feer di fa liggéey peut su ngeen dem mu ngeen a jaar ci famille ba ngeen gis leen waaw li ñu wax c'est très leer lu leer la am dara luñ ci war a nëbb xam na yaayam euh, walla bi muy dem di jàngiwaat Ndakaaru fekk na yaayam génn àdduna waa fekk na yaayam genn àdduna waaw bu mu jogee fii di dem ndakaar mag yaayam moo ko jël si woon waaw am na loo xam ne su nga bi ngay demee si war na leen ko wax ndax dafa yenn saa yoo xam ne di nga ko xam ko yenn doo ko xam mais li ñu wax xam nañ ne mag yaayam moo ko yóbbu woon maire bi loolu parce que bi ñu dégg dégg nañ ñu ni maire bi daf koo génnee waaye euh, maam ji moom weddi na loolu ba set nee na génneewu ko dafa ñëw tàgg ko ne mag dem ci magu yaayam. waaw comme maire na la ko. keroog aussi wax nañ koo nee nañ leen ne kenn dàqu ko comme kenn dàqu ko maire bi wax na ko waxaat naa ko su ngeen demee foofu feneen aussi loolu la ñu wax nit loo am sa doom même su jubadee doo ko mun a dàq ndax fan fan nga koy dàq ak si kan nga koy yóbbu am na wax yoo xam soo ko déggee rek war nga xam ne am lu maanaa ndax nit du jur nit ba pare dàq ko ne dema si yaay jàmbur mbara ay parents jàmbur am na wax yoo xam ne suñ ko waxee nit yow sa bopp war ngaa xalaat est-ce que wax bi am na maana mhm. balaa ñuy ñëw ci ñi nga xamante ni ñu ngi yëkkati ay ay kàddu jëmale ko ci ci Adji Sarr euh, bi ngeen déggee mbir mi problème bi num leen def. communauté bi yëpp la naqari lu la dalee jirna na faya ko ñu ñuy bokk suñ il bi da suñ na bi d'abord ndax doomu jirna lañu xu ñu suturaam moom la ñu ŋàññi kooku amul kenn kum neex peut-être ko xam ne. yoro deretu jër la mbara nga ne ko xam ne mënuma la expliquer lan laal ko mun a ko mais nga lay daal ndax koo gis am nga doom boo xam ne tolloo na ak aji mbara jarbaat mbara sarak te ñun ñi fii ba fayaa ko benn bopp lañ benn famille lañ donc kooku buñ ko déggee dañ ko naqarulu loolu moo taxoon am na télévision bu fi ñëwoon TFM yaakaar nga dégg ngeen ci ñuy wax ñu wax ci wax kan mooy aji wax ko wax leen fan la juddoo fan la màggee depuis 17 ans génn dans 3 ans nga nekk ko xam ne yaa gën a bon ci Sénégal mun na ko nangu. te 17 yëpp c'est une fille exemplaire maanaam. ñi yaa ngi toog dem nga ma mayaat ñeneen dañ ko wax fii la yaroo kii moo ko yoroon. donc nag duñ toog télévision di sos waaw ay waajuram lañ te liñ ko yaree lañu wax xam nañ aussi koo xam ne koo ko gis bëgg ko la mhm. coow li bari lool ñu bari ci ay ñiy wax ne ay mbokkam lañ di def ay ojo di wax lu ne ñu ngi koy wax eh, ci ci ci ci ndoddam yéen ñi nga xamante ni yéenee ko yar coow loolu bi ngeen bi ngeen di dégg audio yooyu lan la leen def ak yan yan éclaircissement ngeen di apporter ci yooyu la. metti nu lool te ñu xam ne ñu xamal nit ne ku nekk am nga mbokk te ku nekk xam nga ne wax yi ngeen dégg audio kenn du ko wax mbokkam sa mbokk ak lu mu am ñaawte ak nu mu mel amul kenn kuy xuñi sutura mbokkam. si télé mbara ay ojo ñi koy def nag ñeen ñi xam nañ leen ñeen ñi xamuñ leen mais a ah, dañ ci aw ñoom yoon ndax soo bàyyi sa mbokk boo ko ak nit ki waxal ko loo xam ne sénégalais yëpp dégg nañ ko ñun su jógee si li dañ leen porte plainte de ñi xam dañ leen porte plainte ñi xamul dañ essayer pour xam leen ñi xamul nag dañ leen porte plainte dañ leen def contre x ndax li tax man maa ngi jàkkaaroo télévision kon xam nga munatuma noppu suma jëm munatuma noppu suma suma kaddu nga ne mbokk nit ki nga comme femme bi wax ne u ne jabaru nijaayam la ñun de buggoon nañ mu def nuñ def joxe turam joxe turi jàkkaram loolu ñu tax ñu ne montage la moom femme bi dañ ko monter dañ ko jox alal boobu muy wax pour mu wax si kaddu loolu dafa yomb mais ñi nga xam ne ñoo ko seq nekk mbokk aji ñun ba foofu def nañ recherche mais xam nañ ne ñoo sax buñ ko déggee sax catégoriquement la ñu wax ne loolu mënut a nekk amul benn mbokk aji boo xam ne dina wax loolu wax kooku moom ah ñu ngi koy seet ñu ngi seet. naka lañ ko gisee mais xam na duñ ko gis ndax bi muy wax loolu sax tolluwul ci feer yooyu ay montage lañ loolu loolu weddi nañ ko ba keroog muy wone boppam wax turam turi jàkkar ji ñu waaw euh, lii yëpp euh, dafa am lu nga xamante ni moom moo ko moom moo ko sabab mooy euh, viol bi nga xamante ni sàkku bi nga xamante ni aji <clears throat> wax na ni moom la ko Ousmane koo sàkk Euh, viol euh, mu nekk loo xamante ni des fois boo koy wax ci askanu séeréer day xaw a doon lu lu lu lu garaaw lool ndax yar bi ñuy yaree doomu séeréer si valeur yooyu noonu ñi nga xamante ni moom la ñu yaree doomu séeréer si mun nañ nga ñu ci dikkalaat tuuti. waaw xam nga àdduna day dox. jullit nag waa naa bi may départ gox bi ñu dëkk arrondissement Niodior benn dina mu nekk mooy lislaam donc bi nga fi ñëwee ba tey nodd rekk ngay dégg ak julli ci loolu la ñu yar mais ba bi aji di jóge fii dem dakaar liñ koy waxal xamuñ ko si moom te yaruñ ko si loolu ndax wax naa la si famille bu mag lañ ko yar wax naa la loolu waaw. d'accord euh, lan ngay wax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan nga tàggatoo ak ñoom. waaw li ma bu wax mooy na Sénégal yëpp def attention ndax métier journaliste am na ñoo xam ne ñu ngi si wax lu ëpp te ak dina boo munti nekk ku dul wax dëgg de yàlla rëbb na ko. kuy waxaal doomu aadama loo xam ne du dëgg moom yàlla rëbb na ko kon bëggoon naa certains wax yu ñu wàññi ko certains audio yi yu bàyyi ko ndax nit su nekkee dégg ñoom xam nañ bokkuñu ak aji man maa ko wax mu leer bokkuñu ak ñoom te loo xam ne waxoon nañ ne am nañ confiance ci justice Sénégal ba yëf yi bàyyi nañ ko si loxoom ndax aji moo porté plainte du keneen Ousmane sonk ne ko ne moo ko viole viol nag am na xam nañ ci ñaar façon mooy jigéen ak nu mu mënti def soo ko forcé def ko si boppam loo xam ne nangu ko loolu viol la ak viol fekk nit ki ndaw mais waxoon naa keroog ne aji li ñu wax dañ ko gëm jusqu'à la preuve du contraire. ñee ñi nee nañ aji euh, am na doom. non loolu yëpp dégg nañ ko abdi aji am na doom aji amul doom aji moxta sey yooyu yëpp ñu ngi koy wax aji am na doom aji sey na yooyu yëpp aji am ko seyut xam nga Sénégal léegi ñun yëpp comprendre nañ ko ndax wax wax boo xam ne du dëgg moo leen genal waxu dëgg daal te Sénégal aussi war nañ comprendre ne ñu bari lu ñu lu ñuy def mooy jaxase rek mais ku am njaboot am fami yeneen wax soo ko soo ko déggee war ngaa seet sa bopp est-ce que sa famille dinañ wax loolu te ñun duñu famille boo xam ne dañ koy foye de waaw wax dëgg yàlla bëggoon naa ñu bari respecté seen bopp ndax waal nit ki lu dul dégg aussi comme ni ma ko waxee ñooñu aussi wax naa leen ne après nañ leen topp si yoon de niñ si xam ñi si amul aussi ñu ngi fexe ndax dara soo ko xëyee ba di ko waxee war ngaa présenté wu wax man la diw comme ni ma def nii war ngaa présenté wu am ne man la diw wax ko wax bu leer mais soo koy wax si kanam boo xamee nangoo joxe sa tur naroo loolu yomb na ku mu neex nga def loo su ma neexoon san télévision ma ne may may may Pape Ousmane Sonko waxal ko ay jikko kan moo ne du moom mais loolu sañu ma ko ndax jullit la te du ma sosal nit te duñ duñ leen fenal déggoo suñ benn famille ŋàññi Ousmane Sonko ndax mu ne bëgg nañ lu mu leer daal. bëgg nañ mbir mi leer d'accord photo bi Adji Sarr la wala du moom. non du Adji Sarr. photo dañ koy monter montage dafa bari su photo mun nañ ma jël su ma dugal ma si mbaam mun nañ ma jël dugal ma si fas Sénégal kañu war nañ xam ne appareil lu neex nit mu def ko mais li leer su neexoon aji comme xale yi jigéen Sénégal yëpp gis nañ liñ sol pantalon kilote silip su ko nee mu doxee ko ndax am na droit am am na liberté am mais loolu ak mbon bokkut jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup kontaan nañ aussi si yéen aussi kontaan nañ wax ak yéen mais am na journal yoo xam ne duñ wax <laughs> jërëjëf jërëjëf mbokk yi euh, seetaan leeral TV dégg ngeen ko noonu Kader Sarr moom nga xamante ni euh, moom mooy chef de village yu euh, dëkk bi témoignage yi nga xamante ni indi na ko ci soxna si di Adji Sarr.